déjà kooku ngeen di wax mustapha lu tudd mustapha nag égyptien la euh, sama xarit la euh, koo xam ne la en réalité bi ñu demee Coupe d'Afrique Égypte bi boo xoolee ba xool FIFA wala CAF boo leen demee compétition dañuy am benn njaatige boo xam ne moom lañ leen di booleel waaw mustapha suñu njaatige la woon Égypte tey loolu la woon maanaam bu ñu ñëwee moom moo ñuy yóbbu lu soxla moom moo ñu fay yóbbu et cetera mais Moustapha amul dara loo xam ne bokk na ko technique bi Moustapha mosul nekk analyste vidéo pour dire rek parfois da ngay jóg suba teel jënd benn journal nga gis nit ñi bind fa loo xam ne doo xam bopp bi doo xam geen bi Moustapha mosul nekk suñu vidéo Moustapha musul liggéeyal équipe nationale suñu téyilawul woon waa CAF ñooñu ko boole woon comme égyptien la suñu soxlaa dara mu gungee ñu fa bi ñu demee coupe du monde tamit beneen ben russe moo fa ne bi ñu ñëwee nii kan bi tamit Cameroun benn Camerounais tamit moo nekkoon Teilo mais Moustapha amul dara loo xam ne bokk na ko staff technique bi loolu vraiment loo xam ne la merci que nga posé ma question boobu pour que ma mën ko ma mën ko leeral mais suñu Teilo woon mais nag nit koo xam ne la dafa xam football nit koo xam ne dana tamit ci yëfu football lay lay yëngatu donc euh, il était tellement bien ak ñun que ñu incorporé <laughs> incorporé ko comme il se doit